يا قومنا لبوا نداء المرتضى فيه السعادة والأمانة والرضا يا قومنا لبوا نداء المرتضى فيه السعادة والأمانة والرضا ndam la juddoo fii masashin xaaza rida ku masa gis jëmmam ja tàggoog marada ñaar fukki fan yu teg juróom benn la feeñ ci weeru gàmmo xet gu neexam xëy na xeeñ fanweeri gàtt yu tegal ñett yu mat lañ lewetal bisub keroog gëstul xarit sëñ daam boroom xam-xam bu mag baa ko teral bisub keroog ngir sant yàlla tey fésal soxna njaxat silla ko wax seex mustapha doomi sëriñ daam abdurahman aarifa wajjur wa soxna faati tuut moo diw turam qad xafidat wa katabat laajal ka xam juróomi kaamil la yaxal biyadiha taxta riaayati alxadiimi cheyqaha qad katabat bi yadiha masaaxifa tucaddu xamsatan turaaka caarifa Cheikh Mad Lamin Jóob xejj baa yaxal yëral ma irwaau nadim yaa saaxiqul mbokkam ma soxna Jóob ñenant la yaxal Cheikh Bamba lum yéene boroom bi xëy dogal ilayya qutta muflixaatin saalixaat na يخدمنا أفضل الورى بساطعات وليبارك في البنين والبنات بسورة أولها والعاديات doomi sëriñ bamba yi ñoo nuróoy melo koo ci na jàkk yëg ci moom ak am solo samba mare ma jóob borom wilaaya ga kookaa di maamam ku ñu xam ca sàmmuga moo marsiyaal maam jaara feeñal ay meloom te xam ko ngir maam jaara ndey la woon mooy ndeyi daaraam te amoon ci moom cofeel ak yërmandeeg ñeewant lillahi lkafil cheikh murtada cheikh haamidoog cheikh ahmadu ñi di ay rakkam mu doon muhammadu xoolal loxoom muhammadoom ja fes na ca góor yàlla nun amun ko ñaar kii bokku ca mii muk muhammadoom mu ñam ga xëy na fab def ko mu ñam góor yàlla kañ ko xat wajab xaa uk muhammadoom ximaaya la ko def ba xëy saxal lim fi saxal wada urif mim ga ba tey mu fab madaris ya taxaw lillahi waxdahu turam yëgg na kaw daalu muhammadin dalil la ciy jëfam yàllaay dalilam mustapha di ab sangam yàlla la tàllaloon loxoom déedéet mbindeef wërsëg fa yàlla lay bawoo yàllaay ra'uuf fa du kamaalil aqli man qadi'a tamad fi rizqihi ala ilaahihi faqad wa man radi bi qismatil ilaahi lam yaxzan ala ma faatahu min an ni'am kudul boroomam muslaxam mukkuk bëggam kudul boroomam muslaxaar ay ndimbalam lu nit ñu yor bàyyee na leen fab alalam delloo ko nit ñi saaxi kii xawmab kanam daanka maala nnaasi yahwawka wala tasalhumu fa yubgiduuka rumula waqfun lillahi alalam yàllaay boroom léppam la jox yàlla yëgal amul moroom saagam bi lim faj aajo kenn du ko lim ngirug bareem daa xettilee ba dëddu dem saag bi da daa ni ngir ab tab la woon du jox la ñax la mbaa mu lor la daa yi woon gan gan doom ja ak ka ko duhul ñeppa yamoon ci moom ku dul yàlla gisul lum def boroomam mooy ki tax mi mbindeef taxul yàlla la seqaloon ngërëm la xad xasal ku masa jis jëmmam ja faw da nga ragal yàllam billaahi yow xarit fa xaysu maa taxaf ilaahaka al ahada yaxafka min xawfikahu kullu ahada muluug yi ak ru'uus yi ko lañ defoon ku masa toogal rët nga xultu an dunuun ba buur yaag seeni dakk dañ koo wegoon buur boo ci jës palam nga sax daa soobu woon joxay mbiram misaal ko buur siin doy na ca mosam sëriñ bee tax ñañuy mbugal du ca cheikh murtada yëngoom dalam lislaama moom qad xaaza ma xaaza wa faaza fil humum yitteem la naawe ba boroom xëy ko gërëm yitteem la naawe ba boroomam xëy gërëm jëfam yu baax yam saxaloon làq na ndam kaanab na waqtihi kaanab na waqtihi mësul aatndiku fan fansab wa fargab hakada nangul xarit mësulo yor metit ba jaamoom ga woyof mësula tayyi ngir boroomam daa urif quraanuhu buy tari tartiilan dangay foog ne kilay naamuus ma daa wàcc u xay rannaanatul kalaami nii neexiitam amul talaaqatul lisaani kemba nit gisul taw feexi fekke ak juleem gaar ma man ay yooni yooni yoon wa daaka alan cheikh moustapha doomam di soppeem xaritam kër gu mu am fanaan na fa ñoñam naam sëtam sëriñ muusa ko daa ñagal jëmam bam ruur du am nitit du weesu aw digam laka matabiya bi shukurin wa rida yaa waasian wastaatali bi murtada warda ani saxbi wa habliya rida minka bihi abdan xadiman murtada réew mii la tàmbaleeg defar mujj ak mu wéy defar bitim réew ba mujj ak lii maa la dey inni uxaatibu nasaara turra fi ardihim li maliki muttarra làmmiñu baayam la fa yóbbu ak jëmam tasxiir la leen def ba ñu nooy nga xam làmmiñu baayam la fa yóbbu ak jëmam tasxiir la leen def ba ñu nooy lii na xam fu masa wàcc ku fa baatinam ba wér yëg na ne réew ma am na gan xaazu bushar fu masa wàcc ku fa baatinam ba wér yëg na ne réew ma am na gan xaazu bushar réew mu fafal naaw ma sa tiim mu ne kaaraange gaw na leen waxat kuntu usir réew mu fafal naaw ma sa tiim mu ne ca biir kaaraange gaw na leen waxat kuntu usir julleem masul faat aéroport la mbaa feneen kalla masul fay bor ku gëstu am yaqiin lañ bat bagaasam mos la am yàllaa ko aar aaraale léppam saaxi taatanal xibaar sëriñ Moussa doomam xibaar na ma ci lëf fa Amérique la xewe woon daaka urif ubbi waliisam lañ bëggoon buur yàlla bañ lum nangu yàlla nangu lum bañ yàlla foñ wa jihliya alqabuula fi lsamaa'i wal ardi wal buxuuri wal hawaa'i xabuul la am guur yàlla ñéppay war wër bëggam xabul la am góor yàlla ñéppay wër bëggam nit ñeeg janaaw yeeg ñañ xamul neema naxam waxam dadaa gàtt du weesu ñaari baat fardan wa masnuunan te it rafet xalaat doo wàññi ay waxam te doo ko yokku it lay dëgg doo ko wër wëral yëgal xarit buy digle maaruufan la koy def du ko cof day leer itam nañ du génn ca xaraf kersaak muñ ak doylu rëyub cër woyof laa biir rafet xalaat yëgal mus la tërëf almuhsinu soomit tawub ma say bandañ waa mee gën ci mbay defal nit ku xereñ ab tallu qad yabdu amaama alwabli walfadlu lilwaabili laa liltalli waame la daj na réew mi daj réew yépp waame wu waame wu niis waame wudul ñiis la ku mar ñëwal dëtam waame la daj réew daj na réew mi daj réew daj réew yépp waame wudul ñiis la ku mar waa dëtam waame la daj na réew mi daj réew yépp itam waame wudul ñiis la ku mar ñëwal dëtam yaa la tastaxilu an il wa bil ulum istaxilu yaa machara subaani in xiftum xajal fa xaddimu taalluman ala amal taallamu l ilma li wajhi llahi duuna al munafasati wattabaahi fa qaddim al ilma lada kulli amal ida aradta an tafuuza bi amal wa man nahaakumu an attaallumi fa nahyuhu ila addalaali yantami wa man nahaakumu an attaallumi fa huwa xalifatu llaini almujrimi alilmu walamalu jawharaani li xayrayi daarayni yajlubaani wa min madarati llaini ayda axzaahu baaqin li yudiimu fayda saddu lmuridina an ittaallumi li wajhi rabbina alalimi alaalami wa min makaidi llaini almujrimi saddu lmuridina an ittaallumi moo tax mu jóg taxaw amal fii daara ngir daq ak réer moo di sippu jaara lim fi amal ci daara ngir toxal réer amu ci ab kem saaxi del nanguk waar te mos la tàllal te mos tàllal buur loxoom kudul boroom arash xamoog bëggam ku gis jëmmam jëluum yaa man su'aalu gayrihi indi dalal id kunta lii bi karamin yaa dal jalaal وكن بربك المعين ذا استعان وإن بغيره استعنت لا تعان بيده جل مقادير الأمور وعنه يجري وحده لا عن أمير وبقضاء الله جل يصدر كل لياد فهو المقتدر lii la xamoon ba tax ku dul yàlla du laaj jox na boroomam lépp du du joxe di xaaj leblente yàllaay këcc a gën day fay bor day fay la ful ko teg ca jañ yay niru lor moo tax mu leb lenteeg boroomam yam fa moom mu far ko féete fépp qad tamma tamaam tamma tamaaman wala qad xaaza rida fa xaaza maa xaaza wa xaaza algarada kaana waliyan murshadan wa murshida wa kaana saalixan wa muslixan bada kaana waliyan wa wafiyan caabida lillahi muxsinan lahu wa saajida kaana taqiyan wa naqiyan saafiya kaana imaaman fi lmasaajidi aya kay bàyyi ruux faj nay tawat te dóorewul te jul te xastewul berul te génnewul doktooru ruux la woon xamoon na raggi xol tabib la saydala la woon yaa saaxiqul gis kuy tërëf mu fat ko muy fanaan fa moom ndekete day defar xolam ba key imaam tarbiya bil xaali wal maqaal la boole woon tarqiya ak tasfiya bi sirril masuun yàlla na ay leeram di dottiku ci nun laylan nahaaran te nu sax ci jëf yëgën na buur dolli ko ay leer ak ngërëm bi jaahi cheykhina alxadimi xul naam yàlla na buur dolli ko ay leer ak ngërëm bi jaahi cheykhina alxadimi xul am yalla na buur dolli ko ay leer ak ngërëm bi jaahi shaykhina alxadimi xul na am ak Rafah TV ñëppay dañ agréé